Heavyweight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 bëgg a toj Louga laa wax Samba Boy bi def lu ni mel nag mu ngi wuyoo ci turu es ndaw at yi toll ci fanweer sa waay vidéo doomu paa bi la am fekk boobu xale bu jigéen bi mu ngi nekk beneen góor ci position yu doy war yoo xam ne kenn mënu ko tudd ci rajo daa di jël vidéo bi envoyé ko baayu xale bi waay way waay ki yo teg ci di ko chantage di ko laaj xaalis baayu xale bi nag bi mu jotee ci vidéo bi ma ne xaarul wax daa jël jël vidéo bi yóbbu ko ci yoon waaw góore waay ci la woy takk der yi daal di traqué samba booy bi ba ne ko niib teg ko loxo fi mu ne mu ngi ñu jàpp ca nungu siin ñaw waxoon naa ko na ko waxaat jigéen ñi yàlla dalee na teral sutural leen waaye léegi am na jigéen ñoo xam ni maara dee taali li xale yi rapportu français yooyu wax elle donne corps avant son nom yomb ni fëgg jaay te xippi ñu sumeeku te nag léegi réew mi dafa am góor ñu ñàkk yërmande pon soxor yoo xam ni toroxal jigéen rek naka la góor di filmer jigéen bu ne dung ñu naan deetawaay nga attan koo publier waay bonte soxor rek xam nga ne ko attana filmer jigéen bu ne dung ni ko ndeyam jure woon ñu naan deetawaay nga jël vidéo yi envoyé ko baayu xale bi ba noppi di ko santas di ko laaj xaalis waay xam nga ne kooku dootul am nit waay waaye tamit suñu jigéen ñi aaya kenn demul ñu des waay jigéen day fonki cërëm yaram waaye léegi kenn xamul li ni moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona laa wax ndaw si nag li mu def doy na war ndax jëkkër gi daf koo takkal ñaareel mënu koo supporter tax mu naan eau de javel doon jéem a xaru hmm, ma ne fiiraange mën naa defloo jigéen lu ne ndaw si mu ngi wuyoo ci turu kaajoob xaw tuut mu ñàkk bakkanam soxna si dafa découvrir ne jëkkër gi dafa takk ñaareel ñun góor ñi tamit kenn demul ñu des ñoo bëgg lu torop kër gi ñaareel bi mu takk mu ngi ko luwel ca Medina bàyyi ca village ba aawo ba ca goro ba moom ak ñetti doomam soxna si bu mu demee ba gis na lii injustice la waaye injustice tigi ana yemale soxna si ci la daggee paas dal di wutali ndakaaru bi mu fekkee jëkkër ji ak ñaareel bi ci kër gi mu luwee ci la daa di ne jëkkër gi day génnee ñaareel bi kër gi waaw waaw lay jaay Dakar de jëkkër ji ngir bañ coow ak wax ji jëm kaw génnee ñaareel bi néeg bi waaye ak loolu jëkkër ji def yépp taxut soxna si giif <laughs> mani fiir baaxul na ko moytu ndax après firange dafa tax soxna si dal di jël eau de naan ko doon jéem a xaru na ëpp na nag ëpp na moo tax ma ne yenn góor yi tamit kenn demul ñu des dëgg la mën ko def ko dara nekku ci tële ko bàyyi ko it dara nekku ci waaye am na góor ñoo xam ne mënunu bawunu moo tax it coono rek ma ne benn jabar sax yor ko du caaxaan waxuma ñaar ñett bay ñeent am na ñoo xam ne boo ko waxee ñu ne da ngaa tapet waaye bëgg jàmm rek te am na jabar yoo xam ni ma ne bu la yàlla booleeg moom takk nga te fermé nga sa porte ndax mënunoo dékku te it xeetu jigéen ñooñu attan nañoo def lu ne ndax fiiraange boo ko amee te xamuloo ko nag wala bàyyiwuloo ci xel bés mën naa ñaw nga am lu la bett ana ñaata góor lañ fi sotti essence taal ndax fiiraange ana ñaata góor lañ fi xëpp diw liñ ndax fiiraange moo tax attention attention yàgg naa koo wax te naa ko waxaat ma ne yenn jigéen ñi ñoo raw bombe atomique de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca tambaaro yomb na doy war ab moo fa sëy ak nijaay akub jarbaat ëskëy ma mbir mi ñu ngi ko doon atte ca tribunal bu Tamba ci wàllum bigami am ñaari jëkkër to réew mi bari ñu ñeme yàlla em ndaw ati toll ci ñaar fukk ak juróom ñaar moom daal la ñu accusé ne dafa sëy ak nijaay akub jarbaatam ëpp tëllaw nee ñu nag ci am mariage leem ndaw gisante ak nijaayu jëkkër ji ñoom ñaar ñu wax na Hmm, waay waay soxna si yee ñeme yàlla semaine lañ ci teg faali di nijaayu jëkkëru ndaw si yebalee ci kër em ndaw ngir ñu may koko waaye bu njëkk bi mu yebalee dañ ko gantal waaye ñi mu yónni woon waxuñu leen lenn lu leer ma nag foofu la erreur bi nekk bu ñu leen waxoon ne kii dafa am borom kër duñu dellu si waaye nag li ci gën a doy waar em ndaw ak baayam bi di dee ndaw dañoo takk sëy bi te xamoon nañu ne em ndaw mu ngi ci buumu sëy oh. waajur buy responsable baaxul moo taxit mbir mi mujj na kalaate ba teeri ci yoon ba ñu yeggee ca tribunal nag yoon daan na em ak baayam bi ko maye ngir ñu fay seen jarbaat bi di jëkkër gi tigi juróom fukki junni waay waay réew mi tas na waa li am na ci réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca xoddu ba doy na war ab l'accident bu metti ab miir daanu caay liggéeykat ba ñeent ñàkk ci seeni bakkan oh, mim réew réew réew mi dee lu ne nga fiy dégg mbirum jaari saw nag moom bu ma ko kenn wax mooy li ma ci waxoon rek mbirum ndaw si moom daa mujjee jaari ci ay coow réew mi lu ne nga fiy dégg yàlla yërëm mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz